baax a baax di eh, ñëwoon tey fii ci màggal gi màggali Daaru Xudóos nga xam ni bu doon sago képp kuy jullit képp kuy murit nga fekke ko kon ñu ciy sant sunu borom bu baax a baax bi mu jaglee loolu ñu ñëw fi tey ànd fi ak sunu responsable nga xam ni ñoo nekk fii ci département bi ñoom Serigne Massamba ñoom Serigne Mbacke Aydara ak ñëpp ànd fi tamit ak ñu bokk ak man parti bi nekk secrétariat national ca Dakar ñëw bokk ak communauté murit bi bis bi bis bi nag bisu xéewal la bisu ñaan la bisu teraanga la moo tax ñoo ngi ñaan ci barke borom bis bi barke sëriñ Touba lépp lim fi digle ci xéewal yàlla na dal ci askan wi xéewal yooyu dal ci senegaal xéewal yooyu dal ci àdduna bi di ñaan sunu boroom jàmm gën yàgg ci biir Sénégal di ci profiter ci bis bi tamit di ñaan kii ci sama xarit di sama wóllëre nga xam ni sànq rek ñoo ngi ñuy annoncé que dafa tawat yàlla yëkkati ko ak jàmm di ñaan tamit yàlla génne ko ci fële mu nekk muy prison bi nga xam ni moom la nekk xëy na duma ci mën a xuus ndaxte bis bi laaju ko wante loolu rek laa bëggoon wax loolu rek laa amoon kàddu message yu jub jubal message yu jàmm bu yaatu message yu ubbi dënn yi message yu gëm yàlla wóolu yàlla message yu xam ni ala kulli ali dañu ñëw ci àdduna mais dañu fiy jóge li am solo rek mooy bin fiy nekk li ñuy def ci lu rafet li ñuy def li nga xam ni ëllëg ku ko nettali ñi la wuutu duñu rus loolu la ñëpp war bàyyi xel kon ñu jiite réew mi tey war ko bàyyi xel ñu yàlla war indi suba war ko bàyyi xel du bisib politique moo tax duma ci mën a xuus wante ñoo ngi leen di gërëm di leen sant jërë ngeen jëf